tey man di jot yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ña teg ci kolos bi bismillah abadtu rabbal alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil sayidina wa mawlaana muhammadin almakin wa ala wa sahaabatihi wa taabiciina lahum bi ihsaan ila yawmi bokki jullit yi teew fii ci jataay bi ak bokki jullit yi teew ci jataay yi ànd ak ñun ci seen xel moo xam ci biir réew mi la ñu nekk wala ci bitim réew mu ngi leen nuyu nuyoo ba gën a sell di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi ñu dëgmal ma di ci occasion di siyaare mboolem jullit yi mboolem taalibe yi di siyaare mboolem ñi ànd ak ñun mbégte mi di ko bégle sëriñ bi sëriñ Abdou Lahad euh, kon nuyoo baa ngi noonu yi nuyu mbokki bi baax rek. kon dañuy daal di dugg rek ci waxtaan wi sëriñ Bassirou dañoo gis ne noonu lislaam yi dafa mel ne ñoom seen xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex lislaam dañ koo gën a tënk ci ñaari cubluwaay benn bi mooy alquranul karim benn bi mooy jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bëggoon a xam nag ci ñaar yooyu di jëmmi alquranul karim ak jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la leen ko waa jëmmale ci biir mi def ngir jàmmaarloo ak noonu lislaam yooyu nga xam ne ñooy xeex lislaam jërëjëf Serigne Abdoul Ahad euh, laaj nga laaj bu am solo bu mat di bàyyi xel bu mat jàngat jamono bu ne ndax li nu gën a seetlu mooy noonu ko ko wax mooy noonu diine yi ñaar yi ñu gën a songu ak seeni ngànnaay mooy alquran ak jëm yonente bi sax ci jamono bii nu toll bu yàgg la bi yonente bi sallallahu alayhi feeñale woote bi ca Makka tuumaal nañu ko moom ci jëmi boppam ni dafa dof tuumaal nañu alxuraan ni ak njabar la tuumaal nañu ko ni ab waykat la tuumaal nañu alxuraan ni asatirul awwalina la maanaam euh, ay caaxaan la yoo xam ne ñu njëkk ñaa ko dajale woon rek mu doon xeeti lépp léegi mu mokkal ko di ko wax mu mel ni loolu rek mooy répété wu jamono bu ne ba ay jamono ñu déggoon fi ay journalistes yu nekk ci Danemark bind ne dañuy ñaawal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba ma ko déggee dama ñoom ñaawaluñ yonente bi seen bopp la ñuy ñaawal ndax am na lool xel mu tilim rek a koy gantu am na lu nit di mel xel mu tilim moo koy gantu mel ni ka ñëw ngir ñaawal jëm yonente bi dafa mel ni boppam lay ñaawal ndax dafay wane rek nu mu gàtte am xel ak nu mu gàtte xalaat ak nu mu ñàkk nite loolu la déggoon nañ ko ay jamono ginnaaw bi it déggaat nañu ko booru ami rek waaye nun ñu am ab jàngukaay ab école muy Cheikhul Khadim radiallahu anhu sëriñ bi dafa mel ni dafa jiitu jamono ndax fii nga xam ni jamono bii nu toll ñaar yi ñaar yi gën a rëy nga xam ne mooy mooy téye diine islaam te mooy alquran ak jëmmi yonent bi sallallahu alayhi mu mel ni noon yi ci lañ gën a jàng jëm ci lu ko tërimal ak lu ko yàq ak lu ko yàq ci xel nit ñi bu ñu xoolee mbind Sëriñ Tuubaa dafa mel ni ñaar yooyu mooy yi ko gën a ñor ci moom mu ñëw ngir défendre leen maa ngi jàng xasida قصيدة نسب القلوب نملني بمو تامولي بمو سانتي يالا لامو كو سانتي موي القران دي من واتيال تمات سك مانا دافر تاي اك الك الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين على الكتاب المستبين آه، مملني بمو تامولي رك li mu njëkk a sant mooy alxuraan mel ni kon loolu eh, li ñuy tuddee antimissile la muy ña jóg ñoom di saboté alxuraan di wax ne asaatirul awwaliina la di wax nii la demee naa la demee moom mu ni man li ma njëkk a sant yàlla mooy cëram bu mat sëkk bi waaye ba mu jàllee yëpp bu jàllee bu xasee génn ci alxuraan rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ci teg ma ma xoolee. xasidaam googu mu tuddee jasbul xulóo li allaamil xuyuub gis naa ne buñ ko doon tënk dañuy wax ne sëriñ bi ci juróom-ñetti tomb la ko tënk ginnaaw bu mu defee muqaddima bi mooy sant yàlla julli ci yonante bi junj jikko yonante bi junj lum jariñ àdduna bi ni historien yi def wax waxtaanikati histoire yi di def muy di tàmbulee ca jëkk muy gane àdduna moom tàmbalewut foofu moo tax na benn kilifa bu daan wax ni sëriñ Tuubaa li mu jiitoo mooy ay teggin la ñu ndax mboolem lañuy ñuy jàngat ci ci ci jëkk juddug yonente bi moom am njàng njàngatam tàmbale woo ko foofu moo daf ko tàmbale rek ci laylatu mawlidin nabi guddi gi jud gi la tàmbale ay waxam moom laylatu mahwi riye bi laylatu mahwi taa bi wa tuhrisi taasmi bi xan na jaatu di wax ne léegi guddi la goo xam ne dafay far ay bàkkaar guddi la goo xam ni day far ay sikk guddi la goo xam ni ak pajub ajoo ngi ci guddi la goo xam ni ak mucc ngi ci noonu la tàmbale maa ni kon jës wala naa la juddoo waaw dara mi ko solo waaye li ko amal solo mooy judd gi li mu mën a andil waaw bi nga xamante ne yonent bi sallallahu mu tàmbalee rek am na kilifay diine yoo xamante ne dañ daan wax ne li mu nu mooy ay teggin la ñu ëppale muy tàmbali euh, tagg yonente bi sallallahu alayhi ak juddoom mu tudd ko waaye bi mu ko tuddee it la ca am ci ay xar baax mu tuddaale ko loolu lépp dafa am lu mu jàngal ñun dañuy jàngal kan mooy yem yonente bi kan mooy jëmm ji nga xam ni yàlla daf ko wàccee ci kaw suuf ngir mu xet li mu def ci jafe-jafe yi mu daan dund mu mel ni mboolem xar baax gu am ci guddi googu yonente bi sallallahu alayhi juddoo sëriñ bi def ko leeral loolu mooy tomb bu njëkk mu dem ba ci biir mu tagg yonent bi ci bindu boppam ndax suñ borom dafa xereñ ni mu ko defale bind bu rafet ci kaw noonu la dafa defee ay jikkoom mu rafet noonu moom sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi tagg ko ci mboolem lu ñuy taggee nit rek tagg na ko yonent bi sallallahu tagg na ko ci bind tagg mu ngi tàmbulee si wal xalqa faaqa xuluqa kal xalqi wal tusallim ni ko moom moo kawe mbindee fii ci jikko ni mu leen kawee ci bind bi mu demee bay tudd eh, maanaam bind bu rafet bi ko suñu borom bind mi ngi ko tàmbalee ci xat kaana zaata wa suti fi l xaddi jaali sotuti walam yekun bir mufrati walam yekun bi adam di wax ni suñu borom daf ko bind mu doon koo xam ne dafa digg doomu mag ñu sëriñ bi yarit magi sëriñ Tuubaa yi dégg loolu am njàngaleem ndax noonu mu tënkee yonente bi ci ni gàttul woon guddul woon ëppul woon loolu ku xeesul eh, mokkal nañ ba yëngu sëriñ Moussa Ka woo xam ni dafa mel ni rek noonu sëñ bi waxee rek daf ko wax ci wolof bu leer muy gàttul guddul xeesuloon ñuulul yaram war a tax cër bi yemat sëkk buy dox sut leer la mu doon lu xar baax ni léegi noonu la ko sëriñ bi gis na yaakaar naa indi na ci lu mat fukki bayit ak nangam yoo xam ni bindub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ci tàgg gannaaw bi mu indi ay jikkoom jikko yi mi ngi ko tàmbalee ci waxuwa ak malul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura walan yura fi shiyam mu wax ni jëmm jooji muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom waxut waxut sax de ka nga xam ni dafay jéem a ñaawal yonente bi kooka moom sëriñ bi waxut ak moom ñun ñii lay waxal ngir xamal nu kan mooy yonente bi bu defee bu am solo ci nun ñun mooy ñun ñu déglu am njàngaleem ka nga xam nag da koy ñaawal ñu jàpp ni boppam lay ñaawlu waaye ñaawlu moom danoo xamal ni yonente bi mooy ki gën a mat ci mi def ci bind ak ci jikko daal di wax ni ku mel ni moom mësta feeñ mukk ci mbindeef yi te dootu feeñati ba abada mësta feeñ mukk ci mbindeef yi te dootu feeñati mukk daal di nag tàmbali nag di dugg ci jikko yi mi ngi tàmbalee ci ahmaduna rahmatuna muy rahma te suñu borom tagg ko ci alquran ci rahma fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalida alqalbi lan faddu min hawlik sëriñ bi bi muy tagg yonent bi sax bi mu ne ahmaduna rahmatuna la wax sunu ahmad mii mooy sunu yërmande daal ne xaamiduna ni'matuna muy tuddee ko xaamid daal ni mooy sunu xéewal te muy xéewal it nag ndax eh, ku xam histoire lan la yonent bi fekkoon ci kaw suuf ak fan la jëlee adduna bi ak fan la ko yóbbu da xam ne xéewalu waxuma la sax xéewalu jullit yi waaye xéewalu ko adduna bépp la waaw mu ne nixmatuna daal di ne mahmuduna farhatuna mu tuddee ko mahmud ni mooy sunu mbégte mu tagg ko ci beneen jikko bu am solo muy al joodu ak tab wal joodu mu ne ak tab bu bu bu xeeb diyam buñ koy wax dañ naan mooy ay taw yu tëppale tëppale une semaine di taw léegi lam war a mën a andil adduna bi ci ci naataange tabug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dépassé na ko waaw dépassé na ko moo jël musi diyam léegi noonu la ko taggee ci bind noonu la ko taggee ci jikko noonu dafa mel ne jas bu lu xar baax la nag ndax dafa mel ne da ci résumé histoire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bi loolu jàllee tudd na ci xaswatu Badar da koy tagg-tagg bu yéene ndax mu ne na xat qaama xayrul bashari wasta xiyaari sumari ilaa dawi takabburi kal badri wastaan jub waaw ah, mu jëmmi ki gën ci mi defi mi ngi jóg digg kuréel yi jëm ca ñooñe doon rëy rëy nag mel ni aw weer ci biir biddiw noonu la melale yonente bi sallallahu alayhi ci biir saxaaba yi léegi nag noonu la résumé Badar ba mu jeex waaye mu jàll it tuddu gàddaay gi ba ci gàddaay gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak yi ci am wa min xawaariqa bada ma xaasa xaarul muqtada salla alayhi man hada bihi zawit tafahumi bi ankabootin andi ci jargoñ ba nga xam dafa ñëw lëndal yonent bi sama sama maanaam xar baax yi ca am ci gàddaay gi lépp mu tudd ko ba mu jàllee nag eh, xasida googu mu daaneele ko ci tudd al isra wal mi'raj la ko tuddee ak yonente yi mu dajeel ak nañ ko jiitale قد بعث يخرق الطباق في الليل قاصد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم هذا يعني يونس صلى الله عليه وسلم دي قوت ديلي يونس تيب دجنا واحترموا يترالكو وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعظموا لقدره المحترم تواضعوا اذا عرفوا رتبته وشرفه نون لتق يونس صلى الله عليه وسلم تي رجعن bi muy dem bay jeexal téere bi nag mu jeexale ko ci taggaat alxuraan nga xam ne kon téere bi njëlbeen gi sant yàlla ci alxuraan la bi mu demee bay jeexal téere bi mu tagg alxuraan wax li muy jariñ jullit yi mu mel ni kon moom anti misil la ci noonu yàlla yi nga xam ne dañoo jël jëmmi alxuraan ak jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir di ko ñaawal Serigne Touba bi mu jëng jëm mooy alxuraan ak jëmmi yonente bi moo tax ma wax ne ah di ma za xidmatin li ahmada damay liggéeyal alquran di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Abdoulahat loolu mooy li nga xamante ne feeñ na ci des bi ci ay jikko yoo xamante ne sëriñ bi tudd na ko ak taggagum tagg alquran jël benn bi tagg koy ci mujj loolu murid yi war nañ ko bàyyi xel loolu am jërëjëf sëriñ Basirou dafa mel ne ni nga tënkee xasida ak jasbul qulub mooy ni mu tëddee nga leeral ko leeraleen bu am solo te mooy wax nga ne sëriñ bi daf koo ubbee ci sant yàlla ci alquranul karim mat gi mu mat mu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu indil ko jullit ñi ngir ñu war koo jëriñoo mu mel ne lépp lu jullit bi di yittewoo ci dunduk àddunaam ak googu àllaaxiraam ci biir alquranul karim yàlla nag tegtal gi nga xam ne tegtal nañu fi ñu mën a jaar ba jariñu jaare ko ci alquran kon sa ne ñu sant ko ci alquranul karim ginnaaw bi itam mu wax ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabal ñu la nga xam ne xam ko ci moom danañu amal njariñ te loola mooy ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la meloon ci jëmmam ba mel ne dañ la koy portlet tegal la ko sa kanam ngay jàkkaarloog moom muy melo yooyu nga xam ne moom la ñu wax ci jëm ci waaye melal la itam ci jikko yi ba nga xam ne soo ko gisul it loo jóg jëm ca man ngaa caa natt nan la ca daan doxe tudd nga fi léegi ab lewetaayam tudd nga fi ak tabam tudd nga fi ak baaxam ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu mel ne su ñuy seet kon lam doon wax ne wa huwa akmalul wara day feeñ ci bind yonente bi xalqan wa xulqan moo xam ci bind bi moo xam ci jëmm ji ni mu gën a nit ñi ci bind ci taar bi ci njekkaay bi daraam ëpput daraam yeesut lépp yam mel lu ne mel na mu war a mel te ne fa mu war a ne noonu la mel itam ci jikko sëriñ bi foofu dama dafay delloo benn laaj mooy ni nga xam ne sëriñ bi liggéeyale na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbind moomu jëme ko ci mbindeef yi jërëjëf euh, sëriñ Abdul Ahad laaj nga laaj bu am solo ci jamono yee ci gannaaw am na ay murit yu ma doon waxtaan loo ci Abdullahi wa Xadimu Rasulihi ni ma lan mooy Abdullahi wa Xadimu Rasulihi ma ni la Abdullahi wa Xadimu Rasulihi daal mooy ñaari garab yi nga xam ni mépp meññet mu ñu watte fii ci biir toolu Sëñ bi di ko jëriñoo fii ci àdduna ak mépp meññet mu ñu ci watte fas ko yéene jariñoo ëllëg ci ñaari garab yooyu la meññe muy garabu abdullahi wa xadimu rasuli sëriñ bi dafa andi rek ñaari baat yi tënk ci lépp amul dara am lu mooy jaamu bi yàlla la di liggéey yonente waaye mën leen loolu bi ñu ko bëggee dégg ñi ngi koy déggee ci ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne afdalu kalimatin qultuha ana wan qabli laa ilaha illallah baat bi gën ci baat bu bu wax man ba baat bu gën ci baat bu yonente yi ma jiite loo xam ne baatu laa leen nag baat boobu mooy bi gën ci bu ñuy wax waaye ana jëf ji ci ji ñuy jëf jan la mooy al ubudiyya mooy jaamu yàlla kon ba baat bee mooy bi bi ñuy wax waaye jëf ko mooy jëf ji gën ci ju ñuy jëf foofu nag la Sëriñ Tuubaa teg tànk muy jaamu yàlla mooy ubudiyya man leen xidma xaadimu rasul lan lay tekki liggéey liggéeyal yonent bi lay tekki ñaari baat rek ñaari baat rek la jubloo junj foofu mooy alquran ak sunna alquran ak sunna dafa jubloo andi jaamu yàlla si alquran ak sunna ñaari point yooyu léegi boo defee sunna buñ ko waxee xidma boobu la ca njëkk mooy taxawal sunna si yonent bi sallallahu alayhi leeral ko ba mu leer naññ tool bi bu fekkee dafa fekkoon yoon wi booy mu bay ko ba mu set mu jaar ca yoon wa di ko wane loolu mooy bi jëkk ci xidma Sëriñ Tuuba léegi nag xidma bi jaamu yàlla la liggéey maanaam julli ci yonente bi la ak tagg yonente bi soosu xam nga maa lay wax léegi ne la boobu daanaka siira yonente bi soosu la sëñ bi tënk te bi mu ko tënkee dafa am luñ ciy jàng léegi beneen xasida moo waxoon naa ne ne la mag ñi dañoo déggoon njàngale si tubaab li mu wax ci arab ni dañ fi wax ci wolof bu leer nit ñi mën ko dégg comme ni ma waxee woon sëñ Moussa Ka dafa wax léegi bi sëñ bi ne léegi xat kaa na daata was suute fil xaddi jaali suute sëñ Moussa Ka ne gàttul guddul xëysul loon ñuulul yaram war a tax ceet ma yomat sëkk buy dox sud la yar laaw sëriñ bi mu ne bi mu ne bi ne bi mu léegi yonente bi san sama yaftarru fii asnab tisaam كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل الظلام كسرج في ظلم خمو نكسي مساك دت آية دفوحني مونيام داي صف ملاخ بيك في تخين مرخ ريحم غا غات يلنا لامب غاسي يلا فمودان خبه <laughs> لغن لغي نكا نونو jës bu boobu jàllee mu tënk ko ci histoire yonent bi sax leer la ko noonu jëkkee alxuraan mujjee alxuraan def yonent bi ci diggante bi xasida gi mu gi ñu tuddee Mawaahibu Naafiya fi ma daay Shaafi lu xar baax la ci tagg daanaka sax mësisu te gis lu mel ndax dafa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasida googu ba xasida gi àgg te tuddul tur waaw hmm? ah, te tuddul tur bi